voilà fii si BDN bi la voilà ñu ngi si tali voilà ñu ngi si tali BDN bi gis ngeen ah yooyu ndeysaan ndeysaan jaajëf ah. daale ko waaw lenn moom xam naa ko président Ousmane Sonko fii nii du ma ne mënu fee dugg tey mais xam naa ne pour mu dugg ci këram tey dina métti trop trop trop trop trop waaw dina métti trop waaw dañu ngi ñaan nag euh, yàlla na yàlla def euh, yàlla na yàlla def sutura euh, ba nga xamante ne dina am sécurité boo xamante ne au moins dina mun a téye nit ñi surtout loolu noonu waaw sécurité boo xamante ne gën a mën a téye ñi nga xamante ne ñooy nit waaw parce que fii li fi nekk ci nit li fi nekk ci nit doy na waar waaw mi xale mi mag mi ndaw ñëpp mën a fees na del del del del ci quatre coins yëpp nag laa la wax waaw waaw maa ngi sa waaw voilà ci quatre coins yëpp waaw xale yi nag ndeysaan xale yi ñu ngi woy benn woy la ñuy woy mooy maanaam ndeysaan mbërgu Euh, sa bàyyi génn na ndeysaan mais woy boobu moom gars yi dañ ko <laughs> non ndeysaan Sénégal euh, dafa neex a gérer waaw Macky Sall euh, peut ma la moo ko dugal ci lii nii yow 2000 yow yaa ngi doon loué waaw en 2000 yaa ngi doon loué yaa ngi doon loué li nga xamante ne di fay 80 000 francs yow peuple def la li nga xamantene tay jini manam lepp lo xamantene bepp lo xalam xabar la ci teranga rek bepp sénégalais jox nañ ko pakistan bepp teranga bo xalat rek sénégalais yi yëkëti lañ ko jox ko ki nga xamantene moy pakistan dem ba jox ko nak daj depp bi suñu né daj depp moy président de la république da tok ñu nomé ñu fal la nga ñëwaat ñu fal la bi 12 ans su nekké alal da doon nga xamante moom la ñu dund ci Macky parce que peuple bii nii dafa jox Macky Sall lépp dafa jox Macky Sall lépp balaa muy falu ay ndaw dañoo xeex plus de quatorze personnes dee ci pour moom mu accéder au pouvoir kon moom war woon sax dellu siwaat gaay euh, gaay war woon sax dellu siwaat laa la wax euh, ba tey ñu yegg si ñu yegg si ni tey ñu yegg si waaw mooy li ma doon wax sànq mu doon lu métti waaw de quatre-vingts jeunes génn ci àdduna ci li nga xamante ne mooy euh, li nga xamante ne kenn mënu ko tuddee. ci sama gars yi. eh du doy. du nitu dara. <laughs> waaye laaj tànk gisuma sama doom. lan di nga jógee. daa man tënkee laa jógee man tënkee laa jógee maa ngi ci affaire yi. dafa am ku may jëriñ mais gisuma sa photo tey. jël bien sama gars yi nii waaw sama team man amoon Bargny laa bokk waaw team Bargny baa ngi nii waaw team Bargny baa ngi nii voilà <laughs> ndeysaan ndeysaan ndeysaan gis nga gars yi ba Bargny lañ jugee waaw ba Bargny ñoom xam nga muy noonu man ñi ñoom kër gi la nekk waaye kàddu gi daal waaye ko doomu ma la rek <laughs> ci kanam Zal baa ngi ñëw gars yi voilà. mooy comme loolu doon expliqué sànq waaw mooy euh, président Macky Sall sénégalais yi jiwuñu ko loo xamante ne euh, li nga xamante ne xew na fi euh, depuis trois ans seen ay sénégale di ko dund tey soo jëlee dëkk bi depuis trois ans mu ngi nii nit ñi ci stress lañ nekk di dund stress bu métti bu métti laa lay wax nii gis nga fu nekk nii man dem naa ba gis ay appétits yoo xamante ne ñoom bëggatuñu si maat

gënul leen ah. ndeysaan dégg ngeen voilà ñun ñaar gën lañ macha allah ndeysaan ndeysaan macha allah macha allah macha allah Vito le grand gagne ko jay ah eh jayum jayum jayum jayum merci beaucoup dinen jayum jayum dinen dinen jayum jayum ko gagne jayum